ayca mi ngoogu ayta euh, programme bi euh, ñu ngi ci tudd ba tey fii ci jiil Mbaye euh, ci Pawlish Mbaye gis nga ni ñu jëlee programme bi waaye danoo ñëw na fekk ñaari géwél yoo xam ni ki nii ku ne xam na ko muy muy le griot de VIP tubaarkàlla lu ñu wax bal la tubaarkàlla moo ñëwoon ci xew waale ba wax lu kenn du dindi Ismaïla Mbaye ngi nii waaye Modou Mbaye ngi nii ñu nekk ay jumeaux yoo xam ne koo foo gis kenn gis fa keneen ki Ismaïla nuyu naa la waaw maa ngi lay fay bu baax si saaram mbaa yaa ngi si jàmm maa ngi nii am jàmm bu baax a baax tey lan moo waral sa teewaay waaw li waral sama teewaay muy muy Pawlish Mbaye day nit ku baax mooy nawle bu baax di xale bu baax bu bari jom walbatiku bis ngoone mi nga xam ne mooy première njëkkeem keroog bi ñuy ñëw di indi waru gar wi ci loxol bisu la ko teg bisu woo ñu maag Modou mbay ñoo ñoo ko indi bisu nag di sunu xarit di sunu jigéen di sunu lépp bëgg nu fonk nu konoon bu amee bis tabarkaala dinañ ñëw taxaw ko loolu war a bi waral seen teewaay tubaarkàlla mais actuellement yéen a xaar a dara ci bis bi daal. Ah? a xaar dara lu mel nan. ambiance ambiance. waaw comme nii rek ñëw nañ ci tudd mi waaw xam naa bu jeexee rek ñu dañuy dem waaw. jeexa ngeen tàggu mbaax daal di dem. <laughs> aja jërëjëf kontaan naa euh, ñu daal di xool sa jumeau nag euh, ñu koy wax na Modou Mbaye Modou Mbaye nag tubaarikàlla euh, yéen ñaar loo leen baax rek ñu ne it la kenn dootu leen ci biir réew Modou nuyu naa la. ah assistant fay. di la nuyu bu baax di nuyu waa Leral TV euh, di nuyu sa euh, fii caméraman bu rafet bi nga àndal di la kontaane bu baax a baax macha allah. Euh, tey jii comme ni ma ko waxee Ismaïla rek lan moo waral seen teewaay actuellement ci bis bi. tey li waral suñu teewaay Pawlish Mbaye moo xewle te Pawlish kenn la si ñun di ku baax dëkk ci réew mi am leen teg ñëpp jàmm di suñu xarit yàlla boole ñu ak moom. mu jël njëkkee may ko biisu ngóone ah, li Ismaïla wax léegi rek keroog ba ñu yóbbu waru gar biisu woonu ñu ne ñëw leen ñu ànd ñu gunge biisu kon tey bu ñu demee ba ci ngénte doom biisu am turandoo dañ koy sant yàlla loolu daal moo waral suñu teewaay tey. kontaan naa kon tey géwél kontaan. waaw tey géwél yi kontaan nañu macha allah sële ngéwél askanu géwél yëpp ñëw na. ki sa parle. waaw sële ngéwél kii par dëgg la tey tey sële ngéwél tey moom fii ba 22h sële ngéwél. kon ngéwél ko demee si sa <laughs> waaw